sëñ Galas ñu ngi leen di nuyu bu baax soxna Xadi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ci association ci turu association des jeunes jeunes pour le développement de Touba Sam association bi nag keroog soxna Xadi man li ma gën a neex ci mbooloo li ma gën a neex ti mbooloo gis nga mbooloo chaque jour boo ko jiitee da ngay fexe di waxtaan ak ñoom parce que am na ñu bëri ñoo xam te ñu ngi Touba xamuñu élection yi nu mu demee soxna Xadi mii ak sama papa bi dañuy woo dañuy leeral ne ñu as na waaw dañu xamal ne ñu élection yi lii la ak lii moom moo ko tax a jóg te man dama leen di santaat bu baax a baax nee naa leen keroog waxoon naa la ko ci kanamu sëñ bi dinaa ko waxaat man personnellement waxoon naa bàyyi naa politique mhm. man waaye yéen mhm. yéen a taxaat man ma dugg ci man ak mbooloo mi ma àndal te xam nga lan moo tax lan moo tax parce que damaa gis ay ndimbal yoo xam te ni da koy def ci ci ci ci li nga xam te ni suñ borom yéen dénk na leen ko ci seenu alal kon su ngeen taxawee ne Sada yow ak sa waa association ñëw leen ngeen jàppale ma damay ñëw barki Serigne Touba man fu ne dem naa ko ci politique sama yaay yi may wax xamal na loolu bu baax ñii nii te ñii dañoo jar a jàppale parce que fii ñii nii dañoo jar a jàppale ñun waa Saam parce que xam lan moo tax barki Seydina Mohamed parfois da ngay jug suba teel gi sa yaram day daw sax doo taseeg lu dul ñoom ñu jëm gaar ba yanu seen siyooy di dem gaar ba ñii dañoo sonn dañ leen a war a jàppale dañoo sonn lool wala soit nga dem fii peese gerte ñëw ñu jàpp sap sab paan waaw xam nga yooyu tamit dafa dafa kii moo tax sëñ bi ñu ngi lay dénkaat suñu bopp Sada Tine laa tudd man maa jiite association bi association des jeunes jeunes pour le développement Touba Sam ñun amuñu lenn lu dul liggéey jërëjëf ñu ngi santaat baax tey santaat sëñ bi lii moom dama koy seede suñuy ñaar ñii suñuy ñaar ñii muy sama papa di sama yaay ji maanaam maanaam gis nga nit su la leen lu baax da ngay taxaw wax ko ko barki Serigne Touba ñun suñu xamante ak yéen yàggul waaye damaa bëgg ñaar ñii ñaar ñii man ñun nga jàppal leen ma leen ñun ñoom ñoom ñun suñu sag lañ ñun ñoom. suñu sag lañ barki sëriñ Touba baax may wax nag seen bët yi taxoon ma waxoo xam naa yéen xam ngeen ñu ngi leen di ñaanal baax ngeen àggale ak seen jàmm. monsieur le maire l'honorable Mamadou Lamine Dia madame maire ñu di nuyu di leen ziare di indi di indi suñu ziar ak suñu nuyoo ak ci turu délégation bi ma àndal te bu ma ci tuddee Serigne Modou Xabaan yóbbaale na ñëpp. di ziyaare sëriñ Ndaam Abdourahman moom sëriñ Ibra di ko jottali sunu ziyaar te di ko ñaanal sunu morom gën ko yàggal te ko di nuyu sunu waajur yee toog yaa soxna Sall di ko sant ci kàddu yu rafet yi mu fi wax di sant yàlla bu baax di góor ñi ak jigéen ñi surtout jeunesse bi di am mbégte bu baax ci teew ci jataay bii di jégalu aussi ci li weesu woon keroog ci retard bi ñu amoon ci wala teel a ñëw te ñëwuñu monsieur le kontaan nañ dafa mel ni tey la gën kon jàpp nañu ne nit ñi li ñu leen di doye xam nañu ko parce que am na lu leen bëggal am na lu leen yéene loolu nag am na luy tax ñu mën ko gannaaw bu ñu feeñee suru yéene daar daar mooy ci waajtaayu élection la ñu nekk suba la campagne bi tëj. kon fu ñu dem bu ñu fa jógee lañ fa war a bàyyi mooy nit ñi fa nekk continuer porte à porte yi gën a sensibiliser nit ñi ci ñu xam xam fan la ñuy jaarale li ñuy wootee pour mën a am réussite ci lu ñu nekk mooy dañu nekk ci benn coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar soo son excellence président bi Macky Sall jiite ko def liggéey bu rafet ci Sénégal mais rawatina ci Touba sëriñ bi seere na ko sant na ko gërëm na ko te loolu yéen am na lu leen ci laal ndax ñi ngi defar fii télé bu jóge ci Baye Fall gi jëm si kër Serigne Ibra ndox mi yéen a ko waxal seen bopp toog ngeen lu yàgg naanu leen bi ñu ko yëgee wax ko ko la jox ay ndigal ñu daal di ñëw jàpp naa ne yéen a waxal seen bopp loolee nag am na lu ci war a dolli ko leneen ak leneen li koy may mag ñi ak ndaw ñi mooy incha allah bu dimanche ñëpp laxasaayu jël lii ñu naan spécimens te am rawatina soxna si yéen jigéen ñi soxna Aminata Touré moo nekk ci bopp bi jiite liste bi bu dee ci département bi ñu ñëw fii jiite ko ànd ko ak mbokk yi kon képp koo xam ne am nga yéeney wote pour jàppale ku la jàppale taxaw ko la taxaw taxaw ko am yéeney jàppale la lii ngay jël mooy liste bu baax bi benn la fi bu loolu jàlle am na ay xale ak nit ñoo xam ne xëy na la ñuy wax seen bopp la ñeel ñoom ñuy tudd ay tur ci fii ñu toll te jàpp naa ne ñaar fukki at wala la ko ëpp ci gannaaw kenn mësu fi dégg borom ñaari tur yi ñu koy wax nag ñoom la concerné liste bu ñu defaree département de Mbacké jël sëtu Cheikh Moustapha Al Karim jël sëtu Serigne Falilou ak seeni mbokki taalibe def ko ci ñuy xëy di ànd ak ñoom suba ak ngoon ak guddi ak bëccëg président tontul na boppam wax ju ñaaw te àndut wax ju bari parce que ñun liste bu ñu nekk Serigne Mountakha yilif ñu du suñu kilifa jàpp naa ne lu ñuy taxawoo askan wi rawatina nitu diine yi loolu moo ci ëpp doole. kon aussi na ngeen jël message boobu di ko véhiculer ku waxati loolu nga ne ko sëti Serigne Touba yi nekk ci liste bi doomu daara yi ci nekk loolu la Macky Sall tontoo ñiy wax wax ju ñaaw ak wax wax ju rafetul ndax moom amul pour tontu leen ci ay wax ci jëf lu wér la mën a def tontu leen te nit moo daq tontu. wax ju ñaaw nit ku ñu samp dëj ko pour mu ànd ak ay nit pour ñu taxawal li nga xamante mooy njariñu askan wi. kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci mobilisation bu rafet bi nga xamante ni moom ngeen def am nañu yéene bu ñu àggee ci dimanche rafet nañ njort aussi ne li ñu yittewoo ci yéen incha allah bureau de vote yi fii danañu ko gagné 100 pour cent bañ ko bokk ak kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu